du Sénégal le bilan des avancées du Sénégal par rapport à la promotion de la condition de la femme on est fier fierté parce que les ñu ko def dans tous les domaines elles sont protégées parce que les loo qui sont ak ak la loi criminalisant le viol et la pédophilie la loi sur la parité sont des preuves ça veut dire que nous avons un arsenal juridique qui nous permet pour que nous en charge jël en charge par rapport aux violences basées sur le genre wax nañ ko léegi violence c'est une c'est un phénomène bo xamné c'est un phénomène mondial phénomène bobu nak président def ci ay jéego yu bëree bëri c'est thème nag mu ne ko égalité pour un avenir durable ñu laal ci nak le changement climatique té bu ñu changement climatique ak réchauffement de la planète ak vraiment li nga xamné mom la tënk yépp ak menace yi def sur le bien-être des populations Sénégal am ci avancée yu majeure def ci lu bëree bëree bëri liggéey ji liggéey aussi vers pour aller vers l'égalité des sexes quand on parle d'égalité des sexes parle d'égalité mathématique donc si ba jigéen ñi fi ngi nekkoon yëkkati leen ba ci kaw fekk ba nga xamne lépp lo xamne action la ak politique yo xamne de développement la ñu ngi seen bop ci biir ba pare nak li Sénégal aussi di di générer comme ressource ñu am seen wal ci biir parce que góor baxna jigen baxna te nous sommes des personnes humaines te ku nekk ci ak sa yelleef ak li nga wara a doon ci rew dañ la ko wara jox mëna sëkk président xam ko comprendre ko ne ñu koy féliciter di ko sargal sargal jigen ñi parce que mom tamit góor la waye président la waye nak la volonté politique est là mu ànd ko moom kenn ànd ko ak jigen ñi ak jigen ak góor ñi mu àndal nak nekk chef d'état mu lancer nak phénomène lancé un programme important ne présent Afrique nous nañu àndandoo jàppale la lutte pour la pour lutter la lutte contre les violences basées sur le genre loolu am solo lool si jigéen ñi ñu féliciter ko encourager féliciter toutes les femmes du Sénégal C'est un gis nga léegi le grand prix du chef de l'État maam atam ñoo gagné loolu wane na c'est équité territoriale boobu am na jigéenu capital yi mën nañu waaye jigéen ñi ne ci biir àll bi tamit ñoom tam elle le mérite ñoom tam vraiment honoré à travers la région de Matam

dara laalewu a amul benn mot boo xam ne ci stratégie boo xam ne dafay wane dañu bëgg dans ce pays amul j'ai défié quiconque 300 pages dans ce document benn mot waxul ko ci dafa wax cette stratégie vise à faire du Sénégal un pays émergent en 2025 dans avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination sans discrimination où les hommes et les femmes